waaw koo merool ndax di nga ndax ndax je sais ndax. maanaam bu jaamu yàlla bi jotee. waaw mi ngi mel ni julli pap mhm. boo banquee julli boo amee xaalis julli. boo feebaree julli boo wéree julli. jaamu yàlla bi bu xasee taxaw muy sëy bi. Mhm. mer amatu fa place. sëyal ak moom ci condition yi la islam wax. mais dañu ne doom. fi muy sosoo. warta soso ci mer. waaye jur ya koy siq waru ñoo mer. looloo tax nga war a dégager mer. waaw mais mer nag mënul ñàkk ba ñëg làmmiñ ñoo dëkk. parce que nag pap mais maire moo indi juboo mais Pape te juboo nag mënul di ñàkk nag. mais Pape sëy bi jaamu yàlla la. waaw xam nga ñu bari dañu jàpp ni sëy plaisir la déedéet xoolal. plaisir bi wis la ci wis. Hmm. mais jaamu yàlla la comme ni julli nekkee jaamu yàlla soo koy def dañu lay bindal tiyaaba est-ce que xam nga loolu. maanaam bu ngeen ko sekkee da ngay am ay. booy sëy dañ lay bindal tiyaaba malaaka yi dañuy bind jamono bi ngay sëy di la bindal yiw. ngay am plaisir malaaka yi di bind yiw. bu dagan bu dagan bi. kon de ñi ñi njaboot bëri na ñuy yiw ñoom Bijou njaay Bijou Ndiaye yiw rek la fan yi <laughs> moom dafa enseigné doom yi yiw yiw yiw la ba fees moom noo dëgg la comme ci jaamu yàlla la bokk saa yoo ko séqee ak sa borom kër wala sa soxna am yiw. saa yu ngeen ci nekkee ki la dagan. kon tele bi bëri na ay borom tuyaab ay boromi tuyaab. <laughs> yàlla moo baax. moo tax ñu ne la même bu dee weeru koor. profité wal sëy ak sa soxna am ba balaa ñuy salaatu. dëgg la macha allah. waaye fu ñu nee asalaatu xayrun minan naw mi nag amatoo droit sëy. Hmm. moo tax ñu ne jigéen bul xañ sa bopp sa jëkkër. Hmm. jëndal ma iPhone jëndu ma guddi ma sol hmm. moom kay dama koo takkal biiram fan yi mu ngi bëgg a dee dana wiñaaru dana dawal loxo dana def lu ne. mais loolu c'est vice versa góor da koy def jigéen da koy def. ñoom ñaar ñëpp kenn waru cee xañ boppam moroomam. ok ok ku ci xañ sa bopp moroomam bàkkaar nga. bàkkaar la. ok parce que waroo ko koo def pap d'accord waroo koo mere ba ni. guddi du baax le mais yàlla nag moo baax. Hmm. may la plaisir ba pare ne la plaisir bi di nga ci am yool. tiyaaba di am bànneex ci sa soxna malaaka yi di la bindal yiw. macha allah di bind rek. am nga tiyaaba am nga tiyaaba nga nekk ci ñuy bind rek. nga nekk ci ñuy bind rek nga nekk ci malaaka yi di bind rek noonu la amee it sens contraire bi mhm. boo nekkee ci bu daganul it malaaka yi di bind mhm. bàkkaar yi mais nag Pape Sénégal ba tey danoo xamagul sharia ni mu jàngalee sëy dafa am benn téere bu tudd xurratul uyun ku ne war nga koo am ñu firil la ko nga xam importance su sëy mais man am na am na koo xamante ni euh, ku jigéen la nee na borom këram da koo xas xas bi naqadi ko lool ata ngi mu mu mu mu mu mu téye bu mu ko def bu mu ko def bu mu téye boppam. Mhm. parce que wax bi ko bi ko jëkkëram wax mën na blessé nit ba gàttal fanam am na wax yoo xam ne ci xol lay àgg mhm. réew mi nag dafa am ñu mën wax ju ñaaw te xuloo mbalit la rek am ñu mën wax ju ñaaw dëgg la de moo tax teel a la wutal sa xol bi kànnaar ba dara du la metti waaw dañ lay wax lu la lu ne lañ lay jiiñ dëgg la lu ne lañ lay dëkkal mhm. bis bu ne ñu yëkkati kaddu bu war a tax nga xaru mhm. wax la ko waaye yàlla nee na nee woon na Seydina Muhammad wa in yukazzibuka faqad kuzibat rusulun min qablika buñ la weddee weddi woon nañ ñi la jiitu bu buñ la sabootee saboote woon nañ ñi la jiitu yàlla nee na dama bëgg góor gu dëgër yàlla pap bokk na ci mu gën a bañ ku tàppet ku gaaw a jànnaxe mm-hmm. koo xam ne lu ñu la wax mu mu yóbbu sa bopp bi dootoo nelaw di naan café guddeeg bëccëg toog ci géej gi jàkkaarloog ndox mi naan j'ai un problème j'ai mes stress tout ça je stress je ma vie ma limité ma vie je mange dof yooyu yàlla jëppi na la dañ la ci yow bu yàgg waaw mais après dañ lay blessé du ñëpp mën na supporter blessure al mu'minul la yàlla wax jullit bu dëgër bu mën a supporter ay commentaire mm-hmm. mën a supporter wax ju bon mën a supporter yu bon yi ñu lay sànni mu lay gën a yokk courage. nga xam ni am na fu ñu lay séentoo bu ñu la fa gis. parce que xas yu bari nag lam war a def ci yow mooy ñii kat bëgguñu ma. am na fu ñu may xaar buñ ma fa gis. kon sëy pap dañu koy jàng. léegi kii dafa téye euh, ne dootul ne jëkkëram euh, dootoo ma xam jëkkër ji téye loxoom ci dépense bi. loolu kenn du ko def pap ñoom ñaar ñëpp wàcc nañ charia jigéen loo ko mere mere jox ko dépense parce que dund gi yow la war. bu yoroon ay milliards yaa ko war a dundal. bul ko mere ba doo ko woddu. bul ko mere ba doo ko jox. yow jigéen bi bul ko mere ba téye sa. yow itam bu ko mere bay takk sa biir. di tëdd guddi sol fiiso. du yoon sol tubay blouson blouson lu muy lu muy wut guddi pap blouson mel ni ku jëm nawetaan. oustaz. waroo koo xañ sa bopp alaaj pap ah. ñu bëgg balaa ngeen di sëy yéen ñaar su ngeen ko manee ngeen sango. lislaam mm-hmm. dafa set bëgg lu set. Mm-hmm. balaa ngeen di ànd ci lal bi yéen ñaar boo demee ci téere bu ñuy wax xurratul yoon daf la wax ni la sa soxna da ngay fow moom. foo genre <laughs> savoir foo tàppante tooñante oui jabar da koy neexal. <laughs> Faal wax ma bokk <laughs> yooyu yëpp ci yool yi la bokk. <laughs> ama islam amul kersa pap day jàngale lépp mu leer. li ñuy bañ mooy. Mhm. jóge ca liggéeyukaay ba agsi rek ni ay ca bëreet. oh waa baaxul nag loolu moom même bu dul l'islam bon sens mayewu ko parce que da sonal nit ki cër bi cër non àdduna avance dafa baax yuusu mii bu lay fay cachet da lay avance. yow tournée yi ngay dem dañ lay avance c'est important oui maa ngi doog a comprendre li nga bëgg a wax donc loolu itam dafa am yool. dafa bari yool. mooy fo ak sa soxna doog a ànd ak moom. d'accord. Mhm. parce que bul jàpp ni. Mhm. Pape plaisir yow rek yaa ko war a am am na góor ñoo xam ne bu ñuy ànd ak yow ba yëg seen bopp mais ñooy raw xaru sarax pare nañ ci yow. ah bon mais loolu tam baaxul. déedéet loolu Pape yëfi baadoola la man yëg naa sama bopp am naa bànneex pare ndaw si àggagul arekaar ba mu jëm. si oustaz <laughs> dama am kersa sax li ngay wax ni <laughs> kersa unaa de. <laughs> man defe naa partie bii dañu koy sàkkal heure ay boori deux heures du matin parce que voilà quoi. yaa ngi dégg Pape. Mm-hmm. ñu bëgg balaa ngeen di sëy yéen ñaar. Mm-hmm. su ngeen mënee sangu ngeen sangu. sangoondoo. oustaz man damay poser ay questions dama bëgg a comprendre. je te jure. su ngeen paree. ku ne bégal moroomam ci fo. Ah. su ngeen paree balaa ngeen di def nag lu mag li. mooy li tubaab naan préliminaire. waaw dafa bokk ci yoon bi. balaa ngaa tàmbali. da nga naan bismillahi allahumma jannib nii wa jannibi sheytaana maa razaqtanaa doo ko tàmbali. ñu ko dul def nag man de mësuma koo xam. si tit loolu obligation la aussi yéene bi bete kuy jàpp wala kuy sangu set comme moom yàlla lépp dafa ni di leen koy yéene balaa ngeen koy def. booy dugg duus. dangay ngay yéene. daf la ni waxal allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi doog a dugg ci duus bi. ak sooy génn nga ni ghufranaka. ah bon doog a génn. sooy génn sa buntu kër neel bismillahi tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim loolu dégg nga chimère jàngaloon na ma doog a génn waaw sooy dugaat ci kër gi ne bismillahi xaraj naa wa bismillahi walaj naa wa ala rabbina tawakkal naa ah a dugg ci kër gi sooy lekk balaa ngaa tàmbali ni allahumma barik lana fii ma razaqtana wa ja'alna min al muslimin doog a lekk hmm? yëpp ni nga ciy ñaanee booy sëyeeg sa soxna jamono bi nga bëggee commencé rek ci saase neel jën jannib nii wa jannibi seytaan mais yenn saa yi nga jànnaxe ba doo mën a wax yooyu de oustaz gis nga xel xanaa yàlla joxe na jurisprudence ci loolu <laughs> ngay réer ba doo tara wax yooyu et puis dafa gudd yow bii nga wax <laughs> c'est diggante bi nga koy wax mais ñaan bi yemul foofu de loolu ah. booy tàmbali la mais boo demee ba yëg sa bopp affaire bi di génn da ngay ñaanaat foofu <laughs> ay Modou Fall mi ay Modou Fall fan lañ ko jëlee waaye mënoo woon dem RTS wala Sen TV parce que yaa ngi may sonal nii là tu me j'ai envie de poser des question ki ma trottent la tête yu mën a jëriñ téléspectateurs yi mais sañu ma koo laajte parce que ci télé la ñu nekk. mais Pape l'islam amul kersa. gis nga sama toogaay bi fii xam nga lan la. Mhm. lu waay bëgg a laaj ci diine ma xam ko. ma xam ko waaw ma bind loolu dama koy tontu. léegi kii boobu nu mu xamul dem gëstu ji ko ci téere laaj ko borom xam yi ma raw. loolu yéene la tudd seen xol baax wala nu mu tudd loolu yéene la. lan si yéene yéene ah, ñaan la ñaan la. ñaan bi lan la premier ñaan. booy tàmbali allahumma jannib nii. allahumma. jannib nii bind leen. allahumma da ngay jàngalekat. allahumma jannib nii jannib jannib nii. jannib nib. ah jannib nii. waaw ah. allahumma jannib. Ah. après. wa jannibi shaytaana. wa jannibi. shaytaana. ok maa razaqtana jannibi shaytaana. maa razaqtana. maa boobu au départ la. waaw balaa dara xew. balaa daraa xew moom ngay ñaan. léegi bu dara xewee nag <laughs> ci parti xew-xew bi looy wax <laughs> le clou de la soirée. foofu ngay sant yàlla. boobu looy wax. alhamdulillahi alladi jar na ko de. alhamdulillahi lazi loo ci teg yàlla na nga ànd sa sago yàlla tamit allahumma alhamdulillahi lazi kon de am na ñu ko nar def alhamdulilah mais xam nga foofu foofu nag mais yàlla il comprend quand même <laughs> damay laajte rek. <laughs> non Pape dañ ñuy séparé ma ak yow. naa la bu yàgg il faut ma dem tey il faut ma dem RTS wala ma dem. <laughs> moo ma gën wala wala fajiri. barki démb dafa am télé bu ma woo ma waaw dañ laa bëggoon. gaaw nañ ci waaw dañ laa soxla woon ma ne ko mm-hmm. ñaata nga may fay mu ne ma nangam ma ne ko dabagoo TFM. Ah. loolu kat waa TFM ñoo ko fi dàq def ku ñu gis nga baax ñu jëlee la ca télé ba man mi ca télé lañ ma <laughs> ci boppam salaire mën ko yombul de xam nga sa salaire mois bi mooy li Youssou tëgg fii ci arena bi <laughs> loolu moom bàyyi ci xel àggaleel <laughs> li mu tëgg nii la premier lam ca am moom la ñuy fay ay boori la 28 bu message bi ñëwee Oustaz ñu ngi woon ci jàngale bu am solo nañ ci dem rek donc euh, booy booy tàmbali da ngay def allahumma. jannib nii jannib nii. wa jannib bi shaytaana. wa jannib bi shaytaana. maa razaqtana. boo demee bay bëgg a yëg sa bopp. alhamdulilahi lazi alhamdulilahi lazi. xalaxa xalaxa. minal maa'i. minal maa'i. basharan. basharan. fa ja'alahu. amul bu gën a simple. <laughs> bu neex a jàpp quoi boo xam ni mën na ñëwaat sa bopp parce que am na fooy toll. yi nga wax nii dafa gudd de nit ñi duñ ko wax de. pap doom dañ koy waajal de. dëgg la tamit. da nga koy waajal ci jaamu yàlla. Mhm. parce que yonent yi sax dañ daan ñaan yàlla ni ko yàlla may ma njaboot gu baax. Mhm. mën nga ko wax ci wolof. dañ ko daan ñaan rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin wajaalna lil muttaqina imama mhm. zurriyatan tayyiba dañu daan ñaan doom ju baax alaaji pap mais Sénégal ni nu bëgg a sëyee dugal ci sëy yi loo xam ne léegi bokkatu ci ah. allahuma janib janib nii bi moom ñii ngi koy bind rek xam naa dañ ko bëgg a jàppale ñoom Marie-Louise tout ça c'est bien il faut écrire noter parce que euh, lu oustaz di jàngale la te mu mën a jëriñ euh, képp koo xamante ni <laughs> mu ngi seetaan TFM dama lay bàyyi vite fait mais amul amul bu gën a gàtt. mais Pape ñaan moom. yàlla dégg na làkk yëpp parce que voilà loolu laa bëggoon wax yàlla dégg na yëpp kon li ngay waxee allahumma ci foofu nga toll mu gudd boo ko mënta jàpp mën nga boo fa tollee ne yàlla sant naa la jërëjëf <laughs> merci yàlla merci et merci moo gën a neex quoi merci merci moo gën a simple mais allahumma alhamdulillah jannib naa xam nga ça peut prendre beaucoup de temps yaa oustaz comme yàlla am na clémence yàlla dégg na làkk yëpp macha allah jamono bi ngay ñaan li ñu li ñu lay ñaanloo xëy na mënoo koo mokkal demal nga jàngi ko mais en attendant wax ko yàlla ci olof mooy yàlla. Mm-hmm. maa ngi lay sant yow mi nga xam ni yaa bind mbindeef yëpp. Mm-hmm. mais nga bindee leen ñu déparé ci ndox mii nga xam ne ci toqantalu mën yu la. macha allah. Mm-hmm. dégg nga wax bi. parce que tout est tout est grâce nga def ko ci làpp nga def ko ci làpp parce que pap sëy. est-ce que xam nga ni sa jabar. dul weeru koor koor gii farata. kooru la yii nga xam ne day jékki-jékki rek mu am envie di leen di wala jeudi. Mhm. ki am borom kër war na ci diisoog boroom këram ba boroom këram d'accord ci. Mhm. parce que mën na laa soxla bëccëg. Mhm. mën naa ñëw pause. añ naan ataaya xelam am ci lu mu nekk. mais doo doo daggaloo doomu jàmbur ji ko waram baal ko ko gis nga tam muñ ak dëgër ci jaamu yàlla la bokk. moo tax ñu ne la koor googu dee ci diisoog moom ba am ci ndigalam. da ngay am xel koor gu mag gi rek la la yàlla wax ni la. amoo droit sëy ak moom ci bëccëgu weeru koor mhm. mais bu ñu xasee ndogu ba keroog ñuy salaatu am nga droit sëy ak moom uhilla lakum laylata siyaami rafasu ila nisaikum mbaa du ñàkk respect yoon yi moo indi sëy yi di gaaw a tas parce que mag ñi suñu wayjur yi kilifa yi ñoom sëy nañoo ak suñu wayjur yu jigéen yi ay 40 ans ay 50 de mariage. ngay dégg ay 70 ans de mariage ngay dégg mbaa du ñun xale yi li ñu euh, li ñu ñàkk a respecté. li ñu ñàkk a ñàkk a sëy voilà moo moo ñu indil ay. sëy yu bëri moo ñu indil ay problème man xam naa sama seyaatee naa toll sama cinquième sëy <laughs> sëykat baa ngi yàlla dafa wax ni boo àndeek sa soxna bis bu nekk mën ngeen a mën ngeen a sëy waaye bu gisee règle am muñal ko ba keroog muy set <laughs> li ma amee naa peut ne dem bu yoon jeexul wax <laughs> muudu dama lay bàyyi parce que danga may wax <laughs> te bëgguma loolu mais daal règles yi il faut les respecter il faut ñu respecter suñu borom wàcce na ay normam jigéen te euh, islaam jàngal ngeen ñu ko amul sikki sàkka pap jigéen bu gisee règle kenn du sëy ak moom dëgg la ci charia mhm. yàlla dafa wax ni mhm. bu ko jege ba keroog muy set mhm. yenn saa yi nga dégg ku naan sama jabar waaw bu indisposé du ma sëy ak moom mais mën naay fow ak moom nangam ak nangam d'accord mais pap mag ñi ñooy wax ni kuy yërnu ñag bu yàggee nga tëb ñag bëgg la yàlla bu am jabar ju mool kooku moom waxuma la ñàkk rek waaye <laughs> moo tax ñu ne la bu xasee gis baaxam sori ko ba keroog muy set bu setee ba sangu dellu siwaat àndal ak moom am nga temps parce que yaa ko moom yaa ko moom mais bu fekkente ni bii tey am na ñoo xam ni dañuy dem nañ ba seen seen fit may na leen ñuy ànd ak jigéen joo xam ne dafa nekk ci baaxam naan mën naa am lu ma utiliser hmm. loo xam ne duma sonal nangam ak nangam or que loolu boo koy def yàlla pap pap yàlla waxoon na ci alquran ni nit dana dem ba mbaam gën ko mais am na jigéen tamit yu lay nax du ñu gis mbaax mais dañ lay nax ne gis nañ ko quoi genre pour éviter mais loolu lépp baaxul pap te loolu bàkkaar la loolu bàkkaar la pap hmm. mag ñi dañoo yiwoon xam nga mag ñi nu ñu daan def hmm. mag ñi dañ daan bañ a tas yaakaaru seeni i borom kër am na ci mag ñoo xam ni bu seen borom kër demee tool balaa ñëw ci la ñuy wut lu xonq taqal ko ci dorob bi pour bu mag mi ñëwee ci kër gi xam ni tey sëy du mën a am sama jabar dafa toll diggante. ci sutura mag ñu ñoo bëri sutura te mën a jàngale. mais jigéen ñi duñ ko def. léegi lan nga leen di xelal oustaz. mooy ñuy waxtaan ak surtout jigéenu jamono ji quoi ñuy waxtaan sëy yi tas yi yëpp da ci bokk. ñuy waxtaan ak borom kër. Mhm. sëy amul na boo. Mhm. rëy rëy bi lañ war a ba rëy bi. Mhm. jëkkër ak jabar rëy dafa am. waaw ah, rëy fa de. looy jaay mbagg ka xugaliku yow kii. parti yi ngay nëbb ci yow kii moo koy gis. dëgg la d'accord <laughs> dëgg la incha allah dëgg la c'est loo xam ni ku la bettoon ngay sangu moom ngay njëkk a nëbbu balaa daraa xew. Ah. ki la yàlla booleel kooku nëbboo wërta am ci seen diggante. Mhm. kersa waratu faa am di leen waxtaan période bi ngay nekk toll ci diggante da ngay waxtaan ak moom. Mhm. mu xam ko. Mhm. norme yi leen yàlla wax ni fii bu ngeen fi tolloo moytu leen nangam ak nangam nga xam ko. mais bu fekkee ni mu ñu neexee lañ bëgg a sëyee. Mhm. façon yi mu ñu neexee lañ bëgg a def am ñuy sëy di ko film. ah bon waaw <laughs> mais loolu tam dafa méngoo ak jamono. déedéet ah baaxul. pap sëy dafa am sutura. dëgg est-ce que xam nga ni ba ci tàllamp ñëpp d'accorduñ ci. <coughs> tàllamp ngeen di gis li ngeen di def du boroom xam-xam yëpp a ci d'accord de. Mhm. am na ñoo xam ni bind na nañu wax ni. sa awraam sax waroo koo teg bët. Youssou mooy visionnaire moo ni woon xaajo guddi boo toogoon ba mu yàgg mu doon bëccëg dina xumb lool c'est vrai. moo tax moo tax yàlla ni sutura dafa baax. yàlla yàlla yàlla defar guddi. yàlla ni wajaal na leen leen fay lamp yi <laughs> mais veilleuse baax na lamp yu xonk yi. wajaal na layla libaasan wajaal na nahaara maashan yàlla nee na damaa def guddi muy sutura. Mm-hmm. yu ci bari di ci xewta kenn du ko yëg. mais veilleuse dara nekku ci yàlla waxul dara ci veilleuse. <laughs> sama kër yëpp dama ko veilleuse <laughs> verre les petites lampes là un peu sombres <laughs> Pape daal réew mi nañu jàngaat sëy mhm. nañu xam ne sëy du num la neexee nga koy defee dafa may condition mais nañu ko jàng ci li ci charia wax li ci charia wax ndax li charia wax ci sëy rek moo mën a dimbali euh, aji ñii sëy seen sëy yàgg mais seen sëy yàgg man xam naa su ma sëyaatee naa jàng <laughs> mais pour moment moom bàyyi leen ma nii rek. <laughs> mais def ay émissions mais nag il faut nga takk nag. non oustaz bàyyi noonu ah. il faut nga takk parce que jigéen day mottali góor. garaawul àdduna amul solo. <laughs> boo tëjee foofu ñu dem ci yeneen question internautes yi parce que ku nekk ngi poser question depuis sànq c' est des questions c' est vrai terre à terre mais qui servent parce que euh, islam yomb na yombul. te mhm. boo demee ak bon sens rek je pense que di nga mën a génn ci yu bëri yoo xamante ni danga ciy posé wu da nga ciy posé wu ay questions yaa mais dëgg la Pape parce que l'islam bii nag Pape kenn du ko mhm. làmbatu mhm. te lépp xam-xam la loo ni sama kersa mayuma ma laaj ko booba yaa ngi def njuumte Seydina Mouhamed question yooyu yëpp la daan am na ku laajte léegi nii euh, est-ce que sondeel baax na bougie Pape bougie du leer leer leer nañ day kii rek sombre bougie la laajte bougie surtout bougie yi xew léegi bougie senteur yi ça dara nekku ci <laughs> wala toujours yow da ngay wax ñu gën a bàyyi xel ci sutura bi. bàyyi xel sutura bi. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni bii tey dañu jàpp ni lislaam mm-hmm. nu la neexee nga koy defee. Mm-hmm. sëy yi pap dañ ci bari yuñ ci dugal. xam nga buñ demee bay taal làmp. ñii di wut ay karawaas. ñii di manote seeni jëkkër. sa jëkkër di sa kilifa nga ne ko indi say loxo mu jox la ay loxoom nga manote mais. yow da xam loolu mënat <laughs> sii ti ti ti ti soo mut faal bi fan lañ ko jëlee def ko ustaas da nga xam mënat mais Pape boo dee dugg Facebook bés bu ne nga gis ko taxaw di jaay ay mënat Facebook dugg ci mënat de film yi ñooy takk ay mënat da ngay seetaan film yooyu yow tamit man de Rick Enter ak Alex Cole bi ñooñu laa gis ñu def ay euh, menottes quoi genre comme dans les films mais quand même lépp luy neexal sëy bu ko nit defee itam ci jaamu yàlla la déedéet loolu Pape wax bu yàqu la lépp luy neexal sëy bu ko nit defee jaamu yàlla la déedéet loolu waxu caaxaan la Pape hmm. sëy dafa am ay norme Pape donc mën doom dañ doom dañ koy waajal waaw quand même quand même ki nga manote baayam di ko karawaase doomu lan nga bëgg a am <laughs> alkaati <laughs> doomi gendarme <laughs> bàyyi ma waaye oustaz yàlla am na clémence léegi ñu dem ci question yi oustaz yow da ngaa compliqué diine ji teg diine ji méttiwul oustaz Modou Fall mën a daal mën na jur doomi gendarme première question euh, bu jógee ci benn internaute je demande aux équipes derrière ñu afficher ma ko ci écran bi ak hashtag bi di midi plus premier rendez-vous de la mi-journée oustaz que dit <coughs> la religion sur le mensonge lan la diine wax ci fen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci insister mhm. ñu ñëw ni ko ndax jullit dana njaaloo ne mm-hmm. seytaane mën na koo mën mu def ko ndax jullit dana sàcc mu ne seytaane mën na koo mën mu def ko mm-hmm. ñu ne ko yaa rasulallahi ndax jullit dana fen mu jug toof ni al muminu laa yakzibu jullit du fen di naa yonent bi fen la gënoon bañ daf ko bañ ba di ci daan insiste moom yonent bi ne iyaakum wal kadibu fa inna al kadiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila an naar wa maa yazaalu rajulu yakzibu wa yataharra al kadiba xatta yuktaba inda allahi kazaban mm-hmm. bàyyi leen fen ñu ne ko lu tax yonent bi mu ne nit dana fen bañ soppi turam ci àdduna tuddee ko ca aras fenkat hmm? am na ñoo xam ne ci àdduna effacé nañ seen tur tur bi ñu leen di woowee tuddatuñ noonu ci malaaka yi ndaxi fen soppi nañ seen tur tuddee leen fenkat ay fen nee na fen mooy tax nit dem ba àgg ci ñu changé turam ca kaw tuddee ko fenkat hmm? yonent bi nee na jullit du fen feebar la nag hmm. ku dul wax dëgg koo xam ni loo wax bu nu ko jeexee du dëgg nit dana àgg ci garaatu pap bu dee boo dee wax farata am na ñoo xam ne boo leen seenee noppi. Ah, am na ñoo xam ne lu nu xam mu siiw. am na ñoo xam ne boo leen séenee rek wax. am na ñoo xam ni boo leen séenee da nga def ay geste ki ngay waxal kobas woog lu ne da ko def pour mu noppi. parce que kii ñëw tame grillage la. tame grillage waaw du tey dara <laughs> réew mi dafa bari ay tame grillage. tame grillage. ay fenkat yoo xam ne dañuy xëy di so di fen rek. Ah. am na ñoo xam ne pape bu nu xëyee sangu sañse ci fen la ñuy xëy ba 18h. ñoom la tubaab naan ñu pause añ. di fenaat ba 22h ñu tëddi mais bu dee feebar la yàlla day comprendre ni feebar la. déedéet nit a ko sàkkul boppam lu waay dal nit yàlla nee na maa asaaba min musibatin fa bi maa kasabat ay diikum lu leen dal yéen a ci yéen a ko def mu dal leen. ah mais bu dee dëkk tubaab bi dañ koy faj. mito mi mythomanie <laughs> mythomane. machine bi faj fenkat bu ñëwoon réew mii day paan. ndax la li fi ne ci ay fenkat mënta faj ñëpp. lii xëy di sos ci réew mii Sénégal gii pap taxaw di fen mel ni koy wax dëgg di fen bay waat. waaye parce que bu ñu gor suñu xamalul dara la ñuy jàpp di ko sosal di ko fenal pap réew mii man pap réew mi mbaa du jékki-jékki baraaye daw fenkat yi ne ci réew mi di fen rek yonent bi nag neena na jullit du fen. Mhm. kon waxtu wi nga nekkee fenkat ak xëy di sos jàppal ni booleetu kenn booleetu la ci jullit ñi parce que yonent bi nee na jullit du fen voilà kon nag fen moom dafa xaram voilà donc question boobu defe naa leer na et puis pour ñi bëgg ñu ñëwaat ci monote yi xam naa dañu koy bëtal rek ba fileeg <laughs> midi plus su Saint-Valentin voilà bëgg ngeen lu neex torop ñu jàll ci beneen question bi kii di insister naa ma ñun ñu dëkkee monote nag jur leen ay policier alors une question oustaz <laughs> un musulman euh, tegal ma question bi bëti baaxatul merci El Hadj Vieux Diouf un musulman peut-il épouser plus de quatre femmes ndax nit mën na takk lu ëpp ñeenti soxna. Euh, alquran day li ci nekk. Hmm. te ragaluñ kaa firi. Hmm. te te li yàlla wax la ñuy firi. Hmm. fii moom bu buñ fi xasee toog bu yabu buñ ko firee ni ko yàlla waxee nga bokk golo gi <laughs> yow la concerné. mais li yàlla wax la wax. je ne je ne peux rien. je ne peux rien. mooy la loolu la ñuy ragaluma dara. ah ok je n'y peux rien waaw j'ai peur de rien. je peur de rien je n'ai peur de rien voilà. <laughs> yàlla nee na ci alquran fankixu maa taaba lakum mina nisaai masna wa sulaasa wa rubaa mhm. takkal benn bu la doyul nga takk ñaar bu la doyul nga takk ñett bu la doyul nga takk ñeent. alquran ji fi sayduna muhammad wàccee de ñeenti soxna la ñu takk loo. mais mën nga am takkoo. déedéet ñeenti soxna fa la lislaam yem pap keneen ku ci dolli leneen yaa xam fa nga ko teg yow la concerné waaye diine yàlla ji ak alquran jii mu jox sayduna muhammad ñeenti soxna fa la yem mais jigéen ñi ak nii ñu rafetee nga am ñeent yu baax gisaat beneen bu baax amoo droit def ko takk suuf wala takkoo déedéet saa yoo demee pap ba sa liste mat bàyyil ba kenn génn nga takk keneen indi muy quatrième femme mais daal ñeent yi ñu yàlla loo daal moo ne ci alquran jii ba bi may mujjee jàng alquran daal aaya ba fa mu yem mooy kat bu dollikuwul léegi ci kanam. wala avant may commencer émission bi. li ma bàyyi woon ci téere bi mooy ñeenti soxna fa la ñu lislaam yemloo. te téere moom amul benn coppite. mu ngoog ñu dem ci euh, beneen question ak hashtag bii di midi plus. Oustaz est-ce qu'on peut euh, reprendre une femme après l'avoir divorcée trois fois koo fase ñetti yoon ndax mën nga koo jëlaat. mën nga koo jëlaat mais nag ci kaw baax de ji am maanaam mu amaat jëkkër ba divorcé baara yógoo ay réglement intérieur dafa metti nag barki Serigne Touba Pape nañuy moytu fase te doyaloo dëgg la de looloo gën a metti Pape li gën a bon ci àdduna mooy déglu nit ñi ba fase mhm. xam nga Sénégal dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay jay ba wutal la fasu laa biir te duñ la gubloo waaw ah, dañ léegi nga ba ci bunt bi dañu dugg faseel faseel ku ciy encouragé nit faseel dëgg la bàyyi ko kii mën ngaa am keneen <laughs> ñu ngi lay ñu ngi lay yàqal de mm. pap ñetti yoon mm. bu neexoon yàlla mu ne fase benn yoon kese la boo ko xasee def pare nga ci mm-hmm. mais yàlla mi la may ñetti sens mais bëggul sa jabar rëcc la fase nga benn mu ne d'accord fase nga ñaar mu ne d'accord fase nga ñett mu ne d'accord mais baatu fase moo war a gaaw a génn xat nga lay na fase naa la. waaw et puis fase fois quand même. mais réew mi am na ñoo xam ne ëppal nañ ko am na ñoo xam ne ñu ngi ci 45 ba pare ne pat. Hmm. yenn saa yi nit woo la di dof dof la oustaz man nag sama jëkkër bi mu may bi mu may fase nag daa meroon xam na kan mooy fase ta mero. d'accord du ñuy fase ñëpp dañoo mer. Hmm. waaye boobu xam naa du ci parce que ni leen arrangé lañ bëgg a dégg mhm. or que l'islam doxewul noonu mhm. ku fi fase sa jabar ñetti yoon pour nga takkaat ko il faut de baada ji lay doon te du doon kompaloo ah doo gis Pape Cheikh Diallo ci suuf ne ko takk ko pour six mois fase ko mais loolu am na am na am na ci réew mi ñuy complot mooy baara yëgu takkal ma ko ndànk bàyyi ko libéré ko ndànk ma ñëw jëlaat ko parce que doyaloo waaw quand même sëy kenn du ko takk ci contrat mhm. yonent bi nee na yàlla rëbb na góor goo xam ne bu la takkee ba xam la intérêt jeex ci yow mu fase la looloo bare ci réew mi am na ñoo xam ne ku leen doon topp doo leen may jabar hmm. parce que weer wu ne ak jabaram ñu daloo jabar hmm. janvier dañuy daloo jabar février ñu daloo jabar mars ñu daloo jabar avril fu ne lañu am jabar ci àdduna jigéen ñi it nooyal la ko bopp xeetu nooy bopp goo xam ni balaa maa dee ñu naan waa ji nag dafa nuru ko am lislaam man lislaam bi rekk ma ci góon di lislaam du sañsee <laughs> bu leen nu rey ak daa am lislaam ay garaam bu bëkki kurus day lislaam dëgg la de xoggali guddal mbaxana ñëw kurus Oustaz Modou Fall kay yiw gi mbir mi du foofu pap du lislaam l'islam kenn du ko incarné ci ay soloog ay waxin bari na ku la nax ci l'islam ba takk la mhm. or que l'islam bi ngay wër nekkul ci moom dëgg la bari na koo fi bàyyi jàpp ni amul l'islam fa la l'islam ba ne ca moom mhm. ñun nag jigéen ñi li leen di rey mooy dañoo ñeme ay kalaasu ustaas laak sëriñ laak mhm. boo duggee ci moom sa jaamu yàlla day yokk ak ban ban mooy yokk kenn daa yokk jaamu yàlla kenn waaye yaakaar moo tax nit ñi di dem màkka dañoo war a yeewu de am na ñoo xam ne li leen dal ñoo ko teg seen bopp pap góor comme mën a doon doo ko gis tey tey ak i colinam ak garambu ba mag koppateem rek nga yaakaar ni l'islam mais l'islam du yonent bi nee na l'islam nekkul ci solo mm-hmm. jaamu yàlla nekkul ci solo mm-hmm. nañuy teey di xam ñi niy dugg ci ñoom mhm. waaye bu ñu lay expliquer seen cas man nag damaa nekk Amérique xam nga bi may wër borom kër waa ji mais <laughs> pap gars yi ku nekk Amérique lañ bëgg <laughs> dañoo wër Sandaga ak marché asalem ak ñee fi luñ leen <laughs> ku ne Amérique lañ bëgg pour dóor la wéeru ci yow pour am green card ah wéeru ci yow pour am séjouru France wéeru ci yow pour am séjouru Italie mhm. ñooñu la ñuy naxtaan yaa ngi liggéey am nga contrat eh, ñaata ngay fayeeku ah man de wax dëgg yàlla sëy moom xam naa ne bu ma la amee moom dañuy ànd rek yokk xeetu yokk xeetu sëy naa wala yokk sa poche waxi dof du ngeen yeewu. beneen question <laughs> beneen si on a des doutes sur son ab ablution sur son ablution qu'est-ce qu'on peut faire maanaam. kuy werante ci njàppam toj na wala tojul nan la war a def njàpp nag dafa gaaw a toj. <laughs> njàpp li moom <laughs> njàpp gaaw naa toj xam naa nag ci li yàlla santaane yëpp njàpp ci gën a fragile njàpp gaaw naa toj cest à pour un rien pour un rien njàpp mën na toj mais heureusement suñu borom mu ngi clémence am rek ak jurisprudence am donc kuy werante ndax njàppam toj na wala tojul non njàpp dafa gaaw a toj oustaz mais Pape njàpp nag euh, lu mu gaaw a toj gaaw a toj dafa am yu koy toj téere bi dafa cité yiy toj njàpp boo gisul yii benn sa njàpp tojul de. comme yan. ok léegi lu tax nit war a war a werante ci njàppam toj na yenn saa yi nga def lu toj njàpp après doo xam ndax def nga defoo yenn saa yi voilà. bangal sa baaraam ma la yii toj njàpp. ñu dem albawlu. albawlu mooy ban. saw jàpp ba pare dem saw. Mhm. ngay jàpp waat. leer na. alxaitu. mooy. dem cabinet. boobu moom góor a toj njàpp la moom. ala kulli al par la force. boobu moom waxuma la njàpp lu toj rek. <laughs> mais sa bopp toj nga demaatal <laughs> kii dafa neex. bangal sa baaraam ar riixu. mooy ban ngelawal. force la mais boo jàppee mu rëcc toj na je demande <laughs> je veux mën na rëcc quoi doo ko tey. bangal sa baaraam. mais boobu toj na bu dee dafa rëcc toj na waxal rek oustaz. ngelawal sax. dama jàpp sax yi ko nit defee nga jàpp waat tonton mag ak ban demal nga jàpp. almasiyu mooy ban mooy bu bu góor tuuree ndox. Mhm. yenn saa yi am na liquide bu ciy topp di génn. Mhm. mel ni mel ni maniyu mhm. kooku boo ko génnee da ngay dafay yàq sa njàpp. jàpp waat ak ban. an mu saqiil. mooy ban nelaw yu xóot. Ah j'ai pas compris genre nga julli nga jàpp julli tisbaar di xaar tàkkusaan tëdd nelaw faf nelaw nelaw deux heures trois heures quatre heures ba cinq heures ñu noddu nga ni bërit jullig du assuré damal jàppuwaat ah dafa bari yuy xew ci biir nelaw yi te yëgoo ko man dal na ma ba tàyyi billaahi surtout weeru koor nga xam ne da ngay sonn mën nga julli tàkkusaan après di xaar timis bi foofu nga tëdd téye sa kurus di wér mën nga faa nelaw da ngay yeew rek gàllax ndi ko julliwaat da war a jàpp par force saa yoo nelawee nelaw yu xóot ok da ngay jàpp ñu ça c'est mooy an naw mu saqil ça c'est ak ban ak ban al irma mooy ban xëm nga jàpp ba pare xëm boo ximali ko da war a jàppuwaat d'accord parce ci biir xëm bi li ci mën a xew daa bëri xew lu ne mën na ci xew effectivement <laughs> ak ban yaa oustaz ak sukuru mooy ban mandi mandi waaw maanaam boo naanee sàngara maanaam nga julli tisbaar nga julli tisbaar ba pare hmm. naan sàngara tàkkusaan gi diggante tisbaar ak tàkkusaan naan nga fi sàngara ak nu doos bi toll sàngara par doos la bu mandee ba tërëf hmm. ba xàmmee too Pape Cheikh Diallo mais bu tërëful genre euh, comme ñun ay tubaab la ñu des fois juste un verre. xam xam <laughs> un est-ce que xam nga ni Pape sangara boo mosee bi ci àdduna doo mos bële. ah bon waaw. kon de am na ñu dul mos bële. mais un verre <laughs> apéro sawur laa sawur laa je parle est-ce que xam nga ni Pape sàngara bu ko jullit naanee mhm. sàngara mhm. su ko jullit naa naanee ci charia mhm. dañ koo war a dóor juróom ñett fukki yar comme ni ñuy dóoree ku njaaloo téeméeri yar xamoon loolu xam loolu guux guux boo guuxee sàngara jullit dañ laa war a dóor juróom ñetti fukki yar waaw lu tax ñu dig ñu sàngara àjjana parce que sàngara yàlla bokk ak bu àdduna ah. xam nga li ma la wax yàlla daf ni sama sàngara wa anhaarun min xamrin lazatin li shaaribiina wa anhaarun min asalin musaffa buñ ko appliqué woon fi Sénégal dinga nga gis ay tëndandiir barke Serigne kon di nga gis ñu seen yaram yi def ay tërgën ay tëndandiir <laughs> ñi ñu ko daganal seen diine sax gis naa ci ñoo xamante ni bokkuñ ci diine jooju ay jullit la ñu woote ñoo ko dàq naan ñii ñu ko dagan seen diine tëndandiir ay égratignure juróom-ñett fukk yar la ñu war a dóor jullit buy naan sàngara voilà donc Pape Sàngara dafa sensible ba nga xam ni mhm. yow miy liggéey ci usine bi sax di wàccee bitéel yi di dugal ci biir da ngay am bakkaar ñi koy jaay nag waaye bu ma la nee ñuy wàccee kii jaay dafa tax ma yow waaye restaurant bële ko kafa ko moom sama géer la de <laughs> te war nañ faa dem maak yow war nañoo teral seet nga li ngay wax bu baax day baar la yore. dafa xaram de. waaye nit ku baax la. dafa xaraam de Pape daal li yàlla wax boo ko waxee ki ci gis boppam na jéem mooy sens bi. mu ngoog mais yàlla moom li mu wax. Mhm. ala kulli xaalin dañ koy wax. voilà yenn saa yi nag mën nga wax li yàlla wax am ñu la ci mere. Mhm. or que man mere ma amul sens mereel yàlla mi ko. bind non kenn sax nit ñi. dinañu def xam nga parti bi topp ak dégg lañ ko tuddee donc topp rek la ak dégg. amul leneen voilà topp rek la ak dégg waaw. pap pap mhm. beneen bii toj njàpp xam nga mooy ban. mooy ban al junoonu. junoonu xam naa lu foor la mooy sa du. junoonu tur bee rëy mooy lan. kuy daanu yësi. boo daanoo yi si moom boo jógee jàppul loolu moom c'est très clair ju ak ban. alxublatu. mooy ban. foon jigéen. ban genre foon accolade wala foon dëgg. même bu dee sa jabar la. même bu fekkee sa jabar la sax nga am ca plaisir wala nga jub la ca am plaisir da koy yàq. parce que l'intention vaut l'action. waaw d'accord jàpp ba pare soxna si romb la nga foon bébé yaa ngi ci añ bi ah nangam nangam. ah mais loolu dafa neex na ko saas laaj sa sijaat di romb sa jabar na ko j'arrive bébé allah njàpp li toj na tonton mag mii da koy def day jàpp tàkkusaan romb Khady Gueye bébé ah looy defaral Mouhamed ok j'arrive mm. à tout à l'heure chérie allah kon yow bëri nga ay julli yoo perte tonton mag Khady Gueye moo la ko yóbbee ah <laughs> donc da nga war a jàppuwaat. boo fóonee sa jabar genre quoi da ngay jàppuwaat. ok beneen bi ci des mooy boo laalee sa zakara. ok. wa massu zakari bi baatinil kaffi aw bi baatinil asaabi'i. maanaam xonq-xonq bi fii. Mhm. bu laalee sa zakara ba ngëpp ko. Mhm. laal mooy mooy mooy paume bi. waaw paume du la bu laalee sa zakara. d'accord da ngay da ngay da ngay da ngay jàpp jiwaat. ok mu ne nag képp koo xam ne da ngay werante ci njàpp. Mhm. sama jàpp toj na wala tojul mhm. nee na su boobaa la jaadu mooy nga dem jàpp jiwaat voilà mhm. voilà dama bëgg ñu gagner du temps 14 heures jot na euh, peut-être dernière question ak hashtag bi di euh, midi plus oustaz quand je suis de tour maanaam bu ayee mon mari est impuissant est-ce qu'il y des prières pour ça en islam maanaam moom bu ayee jëkkëram du ko mënal dara waaw jëkkëram day impuissant est-ce que am na ay ñaan yu ci lislaam wax. waaye bu ñaanluwul lu muy def pap jëkkëram su ayee ci moom du doxle. pap waaw du dox daal. safrla bañ du jët bañ du ree jàmm mais euh, c'est question qui est très importante question bu am solo bi. <laughs> pap hmm. mel ni ku ñu takk xala maanaam bu ayee ci wujjëm bi day baax le mais bu ayee ci moom du baax le pap est-ce que am na ay ñaan. oto daal bu dawul bu nanguwul a takk dañ koy puus. Hmm. oto mhm. su nanguwul tàkk foog nga ni xale yi may ma loxo mhm. kooku nag lam naan xale yi may ma loxo mooy wuti ay ñaan al lépp a ngi ci pap maa farrat naa fil kitaabi min shay'in alquran bàyyiwul dara yonent bi biñ ko liggéeyee ba liggéey bi jàpp ko alquran a ko faj mais est-ce bu dul alxuraan est-ce nit ñi am nañu droit par exemple naan ay ngóor a keng ak yooyu noonu ça peut mën na ko jëriñ loolu moom Pape beneen cause la. Ah, beneen débat la mais daal am na ay ñaan. am na ay ñaan. ñaan yan alxuraan lépp ngi ci Pape. comme lan day dem seeti borom xam wala am nga ay ñaan yooyu ñu mën a proposer. mais Pape xam nga nag ku ne ak domaine am. Mhm. dafa am ñoo xam ne wàllu ñaan. Mhm. loolu seen domaine la. Mhm. ñoom ñoo xam aaya alxuraan yi ñuy composé. ak façon turu yàlla yi ñuy sikkar ñaan ko pour loolu deñ mais nu mën a gën a gaaw a fajee boppam moo gën. parce que mbir kenn mbir dafa yoo xam du xaar. xam nga ay góor gu impuissant la ñu impuissant wu impuissant. loolu yooyu amul xaar moom mënul xaar <laughs> moom faju direct urgence mënul xaar oustaz urgence direct de l'hôpital <laughs> li ma koy conseillé daal mooy. Mhm. am na fi ñu yàlla may xam-xam. Mhm. am na ñoo xam ne seen allahumma yàlla du ko delloo. Mhm. Pape amoo ko ko ku mu mën a woo wala. parce que lii urgence la de bu demee ba bind ko ci suñu internet bi ñu jàllale ko ci suñu télé bi devant tous les oreilles. dina dinaa ko jox sama numéro après dinaa ko donc ki bind lii bu fekkee mën nañu ko bind inbox numéro am dinañu ko dina am ko ko Oustaz Modou Fall. incha allah mu ñaan ma ci euh, rek Pape fi may mhm. fi may jëmoon mooy alquran. Mhm. lépp a ngi ci. Mhm. est-ce que xam nga ne yonent bi biñ ko liggéeyee fa la moo ko faj dañ ko liggéeyoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ koo njabar ba yaram wi di tàng muy jékki-jékki di jug di daw te kenn dàq ko kon liggéey yàgg na ci àddina dañ koo xabtaloon mais segam yonent bi la ñuy liggéey ñun mën nañ ñoo liggéey waqat saaxaru xayrul wara fa shafa bihi tati tabibul attibai wal ilahu wakiilu sama sëriñ alaaji Malick moo ko bind nee na dañoo liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba moo tax falax ak naa si am doole. Mhm. nekk kaaraange moo ko aayatul kursi mhm. di ko jàng pap dara gënu ko. Mhm. di ko jàng mate di ko jàng soir. yonent bi dañ koo xabtal ba pare def ko ci fas moom fas lañ ko liggéeyee fas. ci ay buum xoola def ko fukki fas-fas ak benn onze fas-fas. lañ def liggéey bi. ëf fas ba fukki fas-fas ak benn yi mat daan na toog yaram wi di diis yenn saa yi mu jug di daw ku nu xabtal xam nga réew mi dañ lay xabtal. Mhm. Sénégal gii dañ lay xabtal nga fase sa jabar doo ko tey am na. Eh. <laughs> Eh, tey joo tàggoo balaa may wax lu ëpp sama vie privée dinaa ko mu a fii bu ma la toppee xam nga nu ñuy def nañu tàggoo lu neex du doy. ci lu duuf du nag du xaj ci lu duuf ci nag bi xaw ma nu ñu koy waxee du xaj ci cin li américains yi buñ dee film bu film ba neexee dañuy bind to be continued tubaab naan ko à suivre émission nañ ko à suivre tàggatoo ak téléspectateurs yi ba vendredi incha allah parce que dee moom amul repos non Pape il faut ma ñëw wax la waaw ñii ñaan baat te duñ ko tey nañ ko def thème vendredi prochain ak ñii fase te duñ ko tey nañ ko def thème vendredi bii di ñëw nag loolu laay traité incha allah yan kàddu ngay tëjee Euh, gërëm la Pape. jërëjëf euh, ñaanal la yàlla. Mm. ñaanal sunu soppe yi nu bëgg. Mm-hmm. di ñu defal ay teraanga fu ñu toll. saajo Mané. Sadio maane yóbbante na ndaw kenn amul fay. waaw Sadio kontaan na lool Sadio Mané di ah. gudd fan di nga yàlla la ko yàlla defal. allahumma amin lii nga ñu defal maag Pape Cheikh Diallo amuñu sa fay. wallaahi wallaahi waaye Pape. <laughs> Adja Dieng Sare. ca Amérique ca Amérique moom itam tera loxoom ñëw na Pape loxoom ñëw na voilà yii mënul ñàkk Pape loxoom ni mu ñëwee am na doole wax yu rëy yii ñuy wax ci tele bi dafa war a ànd ak ay ndàmpaay jërëjëf jee astu sare ndàmp tey jee astu sare sa enveloppe bi mën jeex yàlla na yàlla guddal sa fan allahumma amin allahumma amin ah. euh, euh, Adja Marème Faye première dame première dame da daan mm. jekki-jekki rek mm. madame Mbengue woo la ni la jaaral Mermoz. waaw madame Mbengue dina madame Mbengue xaw ma téléphone am daa yàqu. Uh-huh. xaw ma day li ngay wax nii lu ci islam wax <laughs> ay na ma madame Mbengue woo <laughs> ak a gaaw ci orange mu ne. c'est tout tout tout. Pape madame Mbengue bu dee téléphone am daa yàqu nañ ko wutalaat téléphone. <laughs> appelu madame Mbengue Pape lu mu la fekk nga jàpp ko da nga koy bàyyi. première dame nee na nangam. man xaw ma téléphone ma yàq xaw ma luy problème. xam naa rek dafa tukki ku jot madame Mbengue wala nga jot première dame. <laughs> nee ko ñu ngi koy nuyu. <laughs> faal nañu tàggatoo madame Mbengue naa koo dégg Pape. <laughs> ñaanal nag Pape président Youssou Ndour. Mm-hmm. yàlla guddal fan. allahumma amiin allahumma amiin Pape ñun bu ñu. Mm-hmm. bu ñu nammul dara Youssou Ndour a tax. wallaahi wallaahi bu ñu ñu latewul fenn Youssou Ndour a tax. wallaahi si rek soobu. li mu ñuy fay da daf ñu fay suñu cër. mais mbaa xam nga ni suñu saleeru mois bi mooy li mu tëgg fii ci arena bi loolu bàyyi ci xel bu baax nga tëj ñu dem. Pape Youssou Ndour yàlla yàlla guddal fan. li mu am ci baalu premier bi ci la coppati fay la ci. incha allah xam naa man sama salaire sama salaire janvier Pape est-ce que du la ko jox. baal jox ma ma ko joxee ma jël boobu amul problème xaalis la. yàlla na yàlla guddal fanam. allahumma amiin ñaanal Birane Ndour ah El Hadj Ndiaga Ndour. Mm. Bouba ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di gërëm. Pape yàlla yàlla def jàmm. allahumma amiin ñaanal kilifa yi ñuy bàyyi yëpp. allahumma amiin nuyu sama xarit Abdoul mm. Aziz Ala Ndiaye. Mm-hmm. ñaanal ko bu baax. Ah, mm-hmm. nuyu Tahirou Sarr moom itam. Mm-hmm. nit ku baax nit ku tedd nuyu procureur Ibrahima Ndoye di nuyu sunu ay soppe yëpp nga xam ni jamono bi ñu ngi ñuy bàyyi xel waaye ñaanal xalifa bi nag Serigne Babacar Sy Mansour mm-hmm. yàlla gën a guddal fanam amin amin alaaji Pape xam nga mm-hmm. nag euh, la 14 insha allahu taala dëkk boobu ñuy wax Makka Ndiaye mm-hmm. dañuy inauguré seen seen incha am jumaa Màkka Ndiaye fan la nekk. Màkka Ndiaye 7 kilomètres ak Kébémer. ah ok boori Kébémer la. dañuy inauguré nag seen jumaa incha allahu taala. Mhm. loolu nag nekk taxawaay bu am solo. Mhm. dëkk ba yépp di ko bàyyi xel waaye di mhm. ci invité mboolem soppee Seydina Mouhamed yëpp. la 14 lay doon incha allahu taala 14 janvier ca Màkka Ndiaye. loolu tam ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp. Pape yal yàlla defal ñu jàmm. defal ñu sutura. nii ñu àndee réew mi yëpp bëgg ko ne àjjuma ma ni copp man kese rek xamal ni tas nañ sama diggante ak moom man dama laa bëgg a bàyyi sax <laughs> Pape maam Rawaan Ngom ak maam El Hadj Malick bu eh. a toog di waxtaan bay tàqali ko xam na lu ñuy waxante. Eh. ku ci nekk danaan moroomam loo dégg du man. dëgg la de bañ gisee waat <laughs> waaye Pape loo dégg du man bañ gisee waat. <laughs> lan laay wax Amina Poté ak Viviane en tout ñu ngi lay gërëm bu baax yaa oustaz àjjuma bële eh, incha allah bii di ñëw dinañu àndaat ci télévision Futur Média ñu ngi nuyu yaayu Serigne Fallou taalibe Serigne Fallou mami Boy ñu ngi koy ndokkeel bu baax Ndeye Fatou Niang journaliste la fii ci groupe Futur Média Awa Tagali Awa sama Awa ngi koy nuyu Fari Mangane jolof jolof du mën a bon moom itam soppe la bëgg la lool euh, bërki démb rek la ñuy jooy taal màngante euh, noppee guñu donc fari euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax sëriñ Modou Guissé moom it suñu soppe la suñu sang la moo bëggoon lool Chérif Abdourahmane Fall Tila la ñu ngi koy ndokkeel moom fàttewuñu itam Marème Ndiaye mu bu ca dëkk bu ñu naan France Mounas Kan moo bëggoon ñu ñëwaat ci monot yi xam naa midi plus bu Saint-Valentin rek laay ñëwaat ci monot yi parce que tous les moyens pour bégal Euh, seen euh, ay borom kër maam Khoudia mu faatu géwel euh, moom it ñu ngi koy ndokkeel chéri As Ndiaye la Kamal si c'est mon petit frère Ibou Diop Ndiaye le parisien ñu ngi koy ndokkeel Adja Touré mu ajotuma jooju ñu ngi tellement de messages que nous recevons Mami Maysa Marie-Louise Cissé ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp bëggoon nañoo lim ñëpp waaye ku lim juum Caroline Diop bu Idrissa Diop et puis tonton Mac merci ñu ngi gërëm tamit Pape Samba mi ma àndaloon toute la semaine tey comme Diouf moo réalisé coordination bi ak production bi ñu ngi ci àndoon ak euh, du Ndiaye que vous retrouverez euh, à partir de lundi en direct de Cameroun puisque moom mooy ànd ak équipe yi dem toppal ñu euh, suñu équipe nationale par rapport ak Coupe d'Afrique bi nga xamante ni ñoo ngi koy préparé Pape Jean ñu ngi lay gërëm gërëm itam service digital bu télévision Futur Média équipe technique yëpp ñu ngi leen di ñaanal on va revenir ak Midi Plus lundi 11h45 bon appétit bon week-end et à lundi